parce que Kër Massar gii kër ñanga kër euh, nu koy ko waxati kanil baala kanil baas yooyu problème assainissement la ñu am man dem naa plusieurs fois Kaolack am nañ problème assainissement région boo dem le plus souvent lu assainissement lay day nekk. day nekk problème seeni jeen la na xam ne liggéey bu mag ñu koy xaar ci ci foofu ci ONAS. Mhm. Mhm. alors waaye chaque jour suñu xëyee mu mel ni euh, défi yi dafay dafay yokk. Mhm. Euh, Si côté population remarque ñu y a une impatience euh, parce que souvent la euh, période euh, électorale bi a a ay promesses le président euh, le premier ministre ñu ko doon defal population bi yéen ngeen jàppale ouvertement euh, Bassirou Diomaye son excellence pour mu euh, yegg ci pouvoir bi tay yegg si na waaye saa yu ñu xeye dinañu gis ay nit yo xamantene ñu ngi ñaxtu di kaas que comme quoi que liñ doon xaar pour l'instant ñëwagul est-ce que c'est un problème de temps wala ba légui gouvernement bi dañuy dañuy dañuy taxale xamagul ñu réellement lan moy priorité ak fan la ñuy waaw bon question bi Amna solo hein, je pense que euh, mu def ci vraiment journaux yi Amna solo euh, c'est-à-dire rappeler sénégalais yi li nga en tout cas moi, xew-xew mi donc mu wax ci ay points yo xamné ne jot naa ko noter moy premièrement mooy koku ñu tej trois ans après japp ko né deful dara donc ça pose le problème de la justice parce que lolu nak dafa bari Sénégal bari na ñoo xam ne fee ñu ngi taxawaalu seen place prison la mais bari na ñoo xam ne aussi vraiment ñu ngi prison defuñu dara soit dañ leen tooñ soit vraiment ñu dugal leen ci loo xam ne bu ñu defoon une enquête sérieuse wala lu kii dinañ leen bàyyi ñu ñibbi donc loolu bokk na ci défi yi nga xam ne vraiment ñu ngi koy xaar ci euh, le nouveau régime nga xam ne donc ñun ñoom la ñuy kii Euh, côté arène bi aussi wax nañ des fonds yo xamné peut-être gaay nénañ ki ça aussi ça pose un problème de transparence parce que euh, transparence des fois a nekk ci lo xamné ne donc euh, dafa wara bok ci luñuy parce que mom le président sax wote djub jubal jubanti kon lepp li nga xamné mom mo nek ci réew mi di dox transparence diko wara war a donc mu lèr lu ñëpp bok ñëpp yem ci bu ko défé ku né da ci gis bopam mais bu fekkee ne da ngeen bokk dara mu ñëw ñaari nit wala kenn nit ngar daajoo ko vraiment di def lu ko neex wala mu koy defee noo xam ne neexul sax ñu mu bokkal loolu dafa war a dakk parce que réew aussi jub moo koy defal sinon du ko jar euh, bu dee xam-xam bi mën naa wax ne mu ngi fi lu des yëpp mooy ñu jiital gëm yàlla jiital ne li nga xam ne yow dañ la ko dënk pour nga war Euh, jëriñ sénégalais yi loolu dafa war a dem ci sénégalais yi li nga xam ne yow moom lañ la jox bu boobaa yow nga xool noo ko gérer bu koy defee de pense que affaire bi dina gën a euh, donc euh, kii bon wax nañu affaire limogeage u docteur je pense que comme ni ko monsieur le maire waxee commentaire laa ci liir man itam bon dégg naa ne daal bon les employés yu nekk foofu On ONAS donc vraiment amon nañu euh, problème ak mom parce que nee nañu ni ñu gisee affaire bi bon de ko politiser ak nangam bon duma ci dugg ci du dugg ci détails parce que euh, ay commentaire rek la ci lire honnêtement te maandu dafa bax ci lo gis xam né fi ak demee wala mom bu génnee ba def déclaration sénégalais yi dinañ gëna xam lan moy réellement euh, lu tax ñu dindi ko ci ki bi tel na nak wax c'est un gars bo xamné man xam naa ko bu baax daan nañu bok ay conférence de presse parce que faut reconnaître aussi c'est un élément du PDS euh, c'était un élément du PDS donc euh, voilà quoi en tout cas man gis naa ci mom. il était oui c'est ce que j'ai dit je crois ouais moom nekon PDS avant muy créer mouvement bobu mu ki. donc euh, gis naa ci mom nak nit ku dalan hein. c'est pas vraiment les raisons euh, lu war a tax comprendre nga donc ñu kii ko euh, parce que nit yi aussi il faut yenn saa ñu len di nat ci lu bari. Euh, man dafa am ci nga possibilité nga ngor di sénégalais vraiment parfois day des euh, la ci doomu en tout donc euh, affaire bi les tirailleurs sénégalais la France je dirais Sonko a raison de dire à Macron que les choses ont changé il faut que respecter Lolo, bu ko defee mom moy am bu ko parce que ñun am nañu fula nous xamné ak fayda bo xamné nekatuñu fi vraiment di di hésiter ci loolu dañ nga dañ respecter les africains les africains respectent la ci def ñu def ko gagnant gagnant loolu mo fi sinon ko deful la jeunesse là dirigeant bu fi cette jeunesse là t'obligera à le faire Voilà, nous nous la tête kon boo ñëwee donc danga nga war a xool d'abord sa askan lu mu bëgg nga jéem ci donc euh, liggéey pour vraiment affaire bi donc mën a changer euh, euh, fraude bi fraude sur le poids du loolu moom comme ni ko <laughs> <laughs> ay waxee sànq rek je pense Sénégal moom vraiment lu ñu fi war a jubbanti dafa bëri dafa bëri lool dafa bëri. jikko ah. euh, dafa bëri donc kon loolu yëpp bokk na ci loo xam ne gëm naa ne dina changer ah dina changer parce que bon comme wax nga ko sànq gouvernement bi ñu ngi koy door a teg. daanaka trois à quatre mois la ñuy jëm nii donc euh, c'est très prématuré pour ñu def bilan mais boo gisee en tout cas man. Euh, li nga xamné d'abord tax gën naa ko rafetlu moy il faut nga jangat un peu le passé bu njëkk amuñu woon stabilité quand même loolu mom ñëpp ko reconnaître da nga doon xey ne ah mbaar tey du am manifestation wala est-ce que li du fi am man bo xalé yi boo leen génnee bu leen dem nangam nangam parce que tout le temps affaire bi mo na dégénérer mais actuellement qu'est-ce qu'on a constaté donc dëkk bi quand même dalna donc nous avons ñu ngi à leur euh, occupation librement vraiment di dem ça c'est un point bon deuxième point nous avons nous bu ñu donc vraiment du côté gouvernement gouvernement euh, contrairement au nombre de ministres qui ont fait pour rationaliser les dépenses de l'État ça aussi c'est un constat Bon, bon euh, bokk na ci leen ak yenen ak yenen ak yenen vraiment yo xamne ne mën nañ ci waxtaan xamna au cours donc de l'émission yo xamne dinañ ci ñew lu bari ñun lu tax effectivement ñu soutenir len te soutenir len it pour les appeler dire wala ñu len di wax même saa ñu défé naka sa dul nonu dañuy am suñu fulaak suñu fayda wax len ne li fi ngeen jëmé ki bi dëkk bi du nonu s'il persiste andi ñu ci ay léral ñu taxaw au côté des des populations parce que ñun nekkaluñ fi parti politique nekkaluñ fi kenn sénégalais yi lañ fi nekkal saa yu demee ba amataluñu njëriñ dëkk bi dañuy génn ci seen politique bi vraiment defi suñuy affaire. d' d'accord moom moo actualité baa ngi noonu euh, intervention yi ci wari def yaakaar ni amna solo ban jàngat nga ci def bala ñuy ñëw euh, vraiment dans le vif du sujet euh, waxtaan ak mom Jamila Keita su ngeen amee ay questions aussi n'hésitez pas ñu ñu waxtaan ak invité bi. 뭐하고 뭐